ñu dee ñoom ñoo leen rey nguuru Macky Sall la leen rey et ils en sont comptables et responsables te yàggatul nanka nanka rek gis ngeen àdduna nanka nanka rek parce que sa sera réglé faut pas qu'on pense que vingt personnes meurent comme ça et puis voilà on ça passe pour perdre des profits. ñaar ñaar ñaar dee nañ ci ni question da ah, mhm. nga nii ñun ba ñu njëkk dugal demande. gars dem jëli seen.

parce que nag mën nga nekk fonctionnaire mais am nga loo nar bañal sa bopp parce que fii àdduna la man su ma nekkoon tey préfet de Dakar du ma nangu tey opposition di def conférence de presse ne ci bës bi la fas yéene waat génnaat ci mbedd bi ñu ne ma waaw waa nguur gi dañu introduit ils n'ont rien introduit c'est du préfabriqué en complicité ak ku may wooyee Antoine waaw ñàkk jom parce que yenn yi ab ñàkk jom la gis que nit ki da ngay gëm sa bopp am sa fulla am sa fayda ak principe mais nag yow soo foog ne ni que fu nga nekk nii tu es là pour faire le sale boulot nañu dem mais nag bu kenn wax ne ni que on n'avait pas dit parce que je vous dis que tout ça ça se réglera d'une façon ou d'une autre parce que lii nii lii nii il peut pas ne pas avoir de responsable ça ça doit être clair